dal leen ak jàmm mbokk internet yi nga xamante ne bii yéen a nuy ci xibaar kawteef bi am fële ca Medina Mama Rokhaya ki nga xamante ne bii nag xale bu ndaw la. benn euh, dal bâtiment moo wàcc ci li nga xamante ne bi mooy kawam ba mu mujjee ñàkk bakkanam moom maman Roqaya mi mi ngi woon fekk nag ci biir li nga xamante mooy bâtiment bi ay ndonge daara ñoo fa nekkoon ñu jotoon nag di waaye moom mii nag di maman euh, li nga xamante ne bi mooy bâtiment bi moom dafa mujjewee wàcc ci kawam waaye moom ci jëm boppam it dafa mujjewee ñàkk li nga xamante ne bi mooy bakkanam ñuy ñaan jéggal ko